sëñ Babacar Si radiyallaahu anhu mënoon naa dikk di wax man man man moo ne yàlla def na ci moom lu tax mu ko wax mosu ko abadan musta am ba ci mbindam sax léeg sax li ci si daaj di rëcc la gis ne hmm. mosu ko def. maa sax léeg-léeg nga gis mu wax ni yaa ghaa'izal bahri indi yaa. Hmm. wala ya yaa man atama xilaas sii delloo ko ci boppam. Hmm. loolu sëñ Si kay abadan. ba kon boo delloo ci seen mbind nga xam ni mbind dinay refléter lu ku ci bay benn kon xam nga suñu suñu rôle mhm. foo ñu benn vidéo su suñu bàb non mënu la ñàkk mhm. Cheikh Al Khalifa moom waxtaane ko ci ji jamono day farata ndax li tax mooy li ñuy wax ci moom ak lii moom sincèrement c'est diamétralement opposé comme asamaan ak suuf mais yow kuñ la ne daawul nuyu jigéen kuñ la ne daawul xool jigéen ba ci ay soxnaam ay soxnaam su daan génn day mujj di yëglu pour ay doomam mën a daw làqatu ji mu soog a génn wa wa ku ku ku am boobu listiqaama ku xam dafa ragal yàlla ba buy wax sax da ngay da ngay da nga koy yërëm ndax ni muy bàyyee xel ni muy li muy wax hmm. noonu mu daan waxee noonu hmm. loolu la ko yóbbee man dañu ragaloon yàlla ba bu ñuy wax sax seen wax sax duñ ko ñemee gëdd ah, léegi euh, loolu dañ koy jël rek teg ko ne bëgg a jël benn nit boo xamante ne bii nii nii la solo nii la daan lii nii la daan lii nii la daan lii loolu loolu suñu Babacar radiyallaahu taala am bu loolu passé fonkeel gi mu am ci Seydi Hadji ak lu ko taxoon a fonk fonkel gi mu amoon ci moom Cheikh Oumar Fouti fonkel gi mu amoon ci euh, euh, Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiyallaahu anhu yow de yow il te faut plusieurs ah. émissions waaw bapare yamul ti fonkel gi rek mais mu bindu ko bolé ci woy leen ci bahru yu uute ci qaf yu uute ban woy nga woy Seydi Hadji Malick moom wa mais xam nga madda maddaru jada bi malikin wa ka maliki ka dahri marra bi malikin li maliki mais qasida bo rek do doyoon waxuma yi mu ko joy bi mu génne adina yi mu def ci lislaam malik bind comme bi Seydi Malick bindee xilaas ba nopi mu dal ni ko yamana tabi khilasun fa'iqan durara qad ji'ta maa yu'jibu wa wal Eh, da ngay dellu quartier général ah, ah parce que pour wax la maanaam de la bëgg a wax rek ni la yii ñuy wax ci moom nii hmm. si Babacar boobu bëggee xam da ngay dem ci milieu ba demee ci milieu rek xam mais hmm. imaginer mu jamono dootul tabe dootul baaxati ba eh, ëndeeti hmm. ku mel ni Seydil Hadji Malick ci jamono léegi nag ñu on doit se poser la question de lan moo tax noppi la jamono dootul baaxati hmm. ba indee ku mel ni Cheikh Al Hadj Malick jamono parce que Cheikh Al Hadj Malick dafa am lu mu taxawee woon am loo xam ne ci la jeexal dundam. je suis programme ça doit être de revivifier Seydi Hadj Malick pas nag bu fekkente ni bii bu jamono jamono jamono àgg na fii mag ñëw ni depuis 1957 à nos jours xale yi bëgg ko am ci moom cofeel pour jaral leen lu ne. waaw mais jaadu na nag ñu xamal leen kooku moo doon kan ba nga xam ni suñu koy roy dañ koy mën a roy dañuy xam fu ñuy tàmbalee xam nu mu meloon ndax jikko la ñuy roy ci nit. bien sûr yàlla jikkoom la tag xam nga ko daan taxaw ni fii ba Fass maa fi nekkal Cheikh loolu wax bokkan lu ko tax daan wax parce que xam na ni lu yëngu ci tariqa bi bu débordé Cheikh Tidiane Chérif mi ngi ci kaw moom xamoon na moo ko taxoon a mel noonu mu mel suñu Babacar daawul dox ba gestu lu tax. Sëñ Babacar daawul toog bu yëngu du xool gauche du xool droite benn barab lay xool bu xaal bi masaana ñëw bët yi da ngay yaakaar ne dafa xel lu ñuul li day dem ba sey bët yi weex tànn ba su keroog mag ñi dinañ xam ne dina wax ci xam-xam loo xamante ne bii nit dooñu ko gisee ilaa yawmal qiyaamati mooy war day wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax ba ci ñàkk tooy kap si gi ni baa bi leen ko <laughs> nga dégg mag ñi ni ko déedéet mu ne waaw dafa ëppoon rek ma di ko wàññi foyiku mel noonu nga am. li muy dégg ne Seydi Hadji Malick si firi firi na alxuraan tafsir na ko man li muy dégg ne sëñ Babacar si firi na alxuraan. waaw mais sëñ Babacar si firi na firi na alxuraan firi na alxuraan loolu waxu ñu yàqu la sëñ Babacar firi na alxuraan firiwaat alxuraan. dañuy wax ni dañ ko ah te ci toog jàngale ko yor téere nii firi alxuraan firiwaat ko ñun suñu sëriñ sëñ Babacar la njëkk a dégloo firim alxuraan Alxaaji Malick Diop sëñ Babacar fu yor-yor mosaane jot day génn ba tisbaar ñu di ko laaj muy la tontu ñu mais laaj ak tontu yooyu sax am na ci yoo xam ne euh, sëriñ Abdou Alamine radiyallahu anhu dajale na ci am na yu mu ci dajale yoo xam ne ay wolof la nii rek ci diggante laaj ak tontu kese. masala la masala moo xam ne masala fiqhu la bu dellu ci sharia bi wala masala fiqhu bu dellu ci tariqa bi yëpp lañ ko daan laaj léeg-léeg sax nit ay xeeti laaj yoo xam ni day dem ci wàllu géologie wala laaj yoo xam ne dafa war a dellu ci lu science naturelle en fait yi ci daan dellu yu ci bëri dañ ko ko daan laaj. mais soo ko laajee bu tontoo rek nga xam ne ñii xam nañ lépp moo tax am na benn benn mag ca jamonoom benn naar bu jóge woon gànnaar eh, Mouhamad Wulul Xaaj lañ ko daan wax bi mu ñëwee ci Cheikh Al Khalifa ko dafa am lu ma yor bëggoon la ko jox lu dellu ci mbiru baatin la mais suñu Babacar Si pour wax la rek fayda ak xam boppam dafa tax ne ko ñun lépp loo xam ne lu ñu war a jëriñ la Seydi Hadji Malick laa tax muy dem jox ba léegi nanguwul laal li nga xam ni moom la fa naar ba indi te bari na tey jii ñu bal ma kër diina yoo xam ni gannaaw yàlla ci loolu naar ba yoroon lañ tàkkee ñoom mais nag loolu boo koy dégg dafa am lu lees tey dégg mooy mag ñi ñoom lañu set la lu leer la lu wér léegi nag il faut ñu delloo si waat xale yi que ñu xam si Babacar Si radiyallaahu lees war a may ci moom lu ci ëpp mooy jikkoo sëñ daun wah di ca kaw mukk ndànk lay wax dok Babacar bu daan dox doxu jullit lay dox ndax yonent bi mu daan wax waaxu tarang pun ñaaw jullit jullit buy dox taaram pour mu feeñ day dox dox bu la bu alquran doo bëgg mu bàyyi ndax baat ba dafa neexoon Dah baat bu neex dah am lu koy def ci nit mu di jaamu yàlla na ci ay dogam sayu yu ma saan xëy dina jang ñeent fukki yaasin ak benn xayda xayaat yi giiru dundam waqafu alquraanam mësta tarde waaw bu fekkee am na lu ñuy roy ci moom lu palpable mais yii la ku daawul xool jigéen daawul nuyu jigéen moo waral keroog bi mu génnee àddina nitu àddina yi ñoo la gën a xam Léopold Sédar Senghor bi mu dikkee dafa bokkoon ci wax seen genre ni ko waa góor gi dem mu ko waaw yu bàlewul fatiha bi parce que boo Moussa la jël soxla bi lu mu rëy rëy rëy dafa nañ jàng Fatiha billahi alazim Fatiha bi bu daanoo yàlla faj aju si ndaw garab bi ay bind nii déedéet loolu am même doomam bi sax am na ñoo xam ne loolu ci moom lañ ko jëlee ay ñoom Serigne Cheikh Diagne si ñoom ay Serigne Mansour yi daawuñ jël daawuñ bind saafara ndox mi rek la ñuy jël wax ci liñ ci wax jox la wala ñu sëñ Babacar bu kaa bi garaawal ba garaaw ci ndox mi lay bind ndox mi lay teg ñii jël baaraam bi ci pas jël ay parce que ñooñu fi ñu tolloon la léegi nag yooyu dëgg la du du lees tëb di ko roy ci nit ndax dees dox ba yegg ca loola waaye nan la ñuy doxe ba yegg ca loola mooy da ngay tàmbalee ci listiqaamam nit ku jub nit ku jub parce que tamit man daa bëgg nit ñi bàyyi xel ci li général Khalifa radiyallahu taala am doon mag mu jub te gis nga loolu dafa dul caaxaan maanaam mag mu jub koo xamante ne bii ni mës ta koo mën a doon boo naree xëtt sharia bi mu dal ci sa kaw na fi ay jumaa yoo xamante ni bii ni suñ baagar moo ko tëj ci jamono tëj laa wax te li tax mu tëj ko du dara ñafa ñafane lañ fa nekkee la te jumaa yooyu tey jii soo fa demee mbaam yi ak fas yi ñoo fa yemb ci biir jumaa yi moo tax daf ko daan ah. moo tax euh, jawaahir jawaahir jawaahir foog ñu bàyyi xel ci loolu waaw allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim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 اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه wa an ahli tariqatihi wa ahli mawaddati bokk yi ñuy seetaan ñoo ngi ànd ak yéen di yëkkati kàddu di ci jiital sant buur yàlla di ko ñaan mu dollee julli moom sunu borom ala qiblati l arwaxi di maulana muhammadin alayhi salaatu wassalaam ak waa këram ak ak soxnaam ya ak mboole njabootam danay baawaan ak a xëpp ba àgg ci képp ku teg sa tànk mbaa sax ku tegul sa tànk ala siratil mustaqim yal na bur yàlla boole ñu ca di ñaan sunu boroom itam niiri barkeem ya ak niiri ngërëmam ya ak niiri leeram ya yàlla bu mu deñ di ko dotti ala darixi cheikhina abil abbas ahmad tijani ak mboole xalifaam ya ak muqaddamam ya ak mboole njabootam ga ak taalubeem ya ak mboole soppeem ya yal na bur yàlla boole ñu ca soppeem ya ca dëgg إيه، تبارك الله خنا رك دي وخني يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها انال وطري يتي شيخ تيجان جوجو نيغا تاي جوكو دي نيان يالله سبحانه وتعالى اي سن جوتاي بي اك ينيني جوتاي يالنا بور يالله ييغل كو تي جوتاي ياغا خامني جوتاي يمو نانغولا دون جوتاي قضاء الحاجه دون جوتاي تفريج الغموم والكروب يالنكو يال ديفال دنيا واخرى di nuyu képp koo xam ni yaa ngi ànd ak ñun ci asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu di jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na bur yàlla boole defal nu ko e eh, tabaarakallah ni ngeen ko xamee rek mbokk yi ñu dellu siwaat ci daara ji nag ni ngi daane la woon keroog ci jawahirul maani bi nga xam ni ki ko réaliser mën nañu wax ni mooy sunu sëriñ daara sayidi ali haradim barradal fasi yal na buur yàlla dolli ay ngërëmam yal na buur yàlla dolli ay leeram i e, tabarakallahu nee na ñi ngi daaneele woon wa kaana lahu baytun fi daarihi dégg nga ko de keroog bind boobu la ñu jëloon daaneele woon ca cheikh tidiane radiallahu anhu way juram ya bu góor ak bu jigéen tey nag ñi ngi dem ci askanam maana ay bokkam moom Cheikh Tidiane ñi mu bokkal ak ñi nga xam ni ñoo doon ay maamam benn maam ñaar ba ñeenteelu maamam kenn ku ci nekk dana am lu nu wax ci moom su ko defee ñu xam ni euh, li ñuy wax naan al arq dassaasa euh, moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam daf ko daan wax ne siddit dafay rogalaat li ma bëgg a wax rek moo di Cheikh Tidiane ni mu mel ci ay maamam la ko jëlee moo tax nasabuhu sharif mu ni wa amma nasabuhu radiyallahu taala anhu fa amma jadduhu li abihi radiyallahu taala anhu huwa sayidu alasilu annadihu aljalilu ذو المروءة والصيانة والحسب والمكانة والديانة والأمانة سيد المختار ابن أحمد كان رحمه الله ذكيا خيرا مرضيا جوادا فاضلا وفيا كاملا عالي الهمه نبيه الشان من اكابر الاعيان وافاضيل الزمان يواصل الرحم والاقارب ويواسي الجيران والاجانب كثير السخاء شديد الحياء رضي الله تعالى عنه وارضاه وجعل الجنه مثواه مني fa amma jadduhu moom Cheikh Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu kooku nga xam ni moo di maamam maam dafa am solo ci ab sët ndax wolof dafay faral di lépp ni sët bu baax boo gis ñaanuk maamam la loolu bokk na ci li tax ti yàlla muhammad daan wax ni ana daawatu jaddi ibrahim ana da'watu jaddi ibrahim man may ka nga xamni ni yont yalla ibrahim gamu ñaanu cey setam ci man la ko yàlla nangoo man may ñaanuk yont yalla ibrahim ga te ñaan ga mo don lan wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik yow bur yalla ma ngi lay ñaan rek way na nga yabal ci dekk bi di makka ak adina ak liko wër ndaw loo xam ni dana ñëw te bu ñëwee dang ko jox say wax mu di leen ca euh, jàngal di leen ca tete di leen di leen euh, defaral seen xol di leen defaral seen ruu di leen sellal aw ndaw lu mel noonu laa wax moo tax ti bi alayhi salaam daan wax ana daawatu jaddi ibrahim man maay sama ñaanu maam yonent yàlla ibrahim kon maam maam dafa am solo aw léegi nag mu des ndax nit dafa war a tiitaroo ay maamam wala ndax nag nit dafa war a góor góorlu ba ay maamam di ko tiitaroo moom moo tax jeunesse bi loolu yéen laa koy adressel nangeen def pexe ba seen ay waajur ak seeni maam ak seen askan di leen tiitaroo c'est très important ci wàllu njàng ci wàllu njub ci wàllu gëstu ci walu bind khatim ay téré bayiko fi mu nek luy éternel nek shay'an khalidan ila yawmil qiyamah waye itam ci walu jaamu yàlla yoyu mo fi nek na ngeen ci bàyyi xel parce que c'est très important bu ko defé nak ci bir lolu dafa am ben ben sha'ir ben poète bo xamni siwna dan nañ ko wowe shaairu dunya muy abu tayyib al mutanabbi daf dan wax muni man bima ñewé dama fekk waykat yu bari dañ daan tiitaroo ak daan puukarewoo seeni maam waaw ak seen giir gi ñu bokk mu ni mais man teddewuma ci sama giir sama giir gi ma bokk ñoom ñoo tedde ci man giir mooy clan clan bi ma bokk suñu teddee ci man lañ teddee ndax am nañ doom ju mel ni man mu ni it samay maam duma leen tiitaroo waaye ñoom ñoo may tiitaroo ndax dañ nan am nañ seut bu melni ni tayyib al mutanabbi kuñ daan woowee chaa'iru dunya nga xamni ibnu jinni ci masaqin yi la bakon daf dan wax muni wa mara an raa thani al mutanabbi ayu thani yura li bikri zamani neena mara an raa nit ñi dootu ñu gisati ci adina thani al mutanabbi ku melni ibnu abu tayyib al mutanabbi sone benn dooni ñaar muni wa ayu thani yura li bikri zamani fan lañuy jëleeti ku meuna ñaarel ki nga xamanteni bi ni moom moo di jànqub jamono ni mu mel ci taar ak xam-xam kenn melu ni kooku nag nga xam ni dafa wax ni duma ma tiitaroo samay maam dama bëgg a wax def ñu def benn corrélation cheikhu Tidiane radiallahu anhu bu ñuy tudd fii ay maamam neexul ba neexul waaye ay maamam ñoo koy tiitaroo moom ndax am nañ sët boo xam ne mooy taajul arifin am nañ sët boo xam ne moom mooy mu middu awliyaa irrahman أمنا يسد sët boo xam ne mooy saaxibul katmiyati wal xatmiyati wal barzaxiyati al uzma kon ay maamam ñoo ko tiitaroo loolu nag ndax dañ koy wax نو rek mu nekk quelque chose pour que képp koo xamante ni bii ni jokk nga ci moom te di ndaw nga góorgóorlu ba jaar fa mu jaar jombul bu tombeek dogalu yàlla boo amut lu ni tollit bu ëllëgee xëy na ñu mën laa tiitaroo ah yàlla nañ ko yàlla boole defal moo tax da ngay wax ni fa amma jadduhu ndaal maamam la kooku nga xam ni moo di maamam moom Cheikh Tidiane li abihi ñel way juróom wu góor maanaa maamam bu góor bi jur way juróom wu góor moom la ñuy wax maam ju góor radiyallahu anhu nee na yàlla na bur yàlla dolli ko ngërëm nee na huwa kooku de as-sayyid mooy sang ba sang nag boo ko déggee ñaare lu ñuy tagg ci jikkoy nit ki waaw as-sayyid sang ba ay na man saadu di nga ko jàng ca sa laamiyatu bnu werd ay na man saadu wa shaadu wa banaw mu ni halakal kullu falam tughnil qulal mu ni ana ñi fi nekkoon ay sang ana ñi yëkkati woon seen tata ya tata mooy ay gratte ay étage wa banaw ñu tabaxoon ay kër ana ñu mu ni halakal kullu falam tughnil qulal ñoom ñëpp tey ñu ngi ci biir suuf te alal joojee ba jariñu leen dara baatu saada loolu lay firi mooy koo xam ni ku am ak càng la moom la ñuy wax as sayid nee na kon maamam jooju as sayid mooy sang ba al asil nee na doon koo xamante ni bii ni nit euh, ku ku cosaanu la woon boo déggee nit ku cosaanu mooy nit ku authentique xam nga daa am nit ñoo xam ni lu jug yóbbaale leen loolu baaxul nit dafa war a nekk nit ku authentique authenticité bu ñu koy wax ci cadre nit mooy nit koo xam ni ni mu mel la mel jamono du ko soppi nit ni moom du ko soppi waaw loolu nag lu am solo la authenticité waaw mu daal di ni itam an nazihu nee na ku set la nazihu buñ ko waxee mooy ku set ci wax set ci xalaat set ci lépp waaye aljalilu nee na maamam jooju ku màgg la zulmurua nee na borom eh, borom mbañum ruus la al murua mooy mbañum rus loolu la wolof di wax mbañum ruus mooy koo xam ni danaan jomb naa def nangam mooy jomb waaw moom nga dégg Cheikh Al Hadj Mansour di wax ni murua murua nee na loolu bu fekkee diine li ñuy tuddee diine religion su fekkee am na sœur diine bu doon góor nee na sœuram mooy almuruatu jomb naa def nangam loolu mooy sœuru diine شيخ حاج محمد المنصور مقدان بخ لولا المروءة أخت الدين ما انبسطت كفي إلى أحد خوفا من الفتن دون لك دان بخي لولا المروءة برلون أك مروس جمبا دف نينا أخت الدين كوك نغا خمني موي سير الدين ما انبسطت كفي إلى أحد سما لو دوتو موكو تالال ديكو جيمي سي كين لوتاخ خوفا من الفتن خنا ريك رك رك الفتنه واو واو نك دني mbañum rus deglul bu baax ñu def ben corrélation bu tuti fofu nga xam gaayu cheikh yi Cheikh Mansour daf ni mbañum rus mom moy diine ku am sër di nga am frère seigne babakir si magam radiyallahu anhu dik ni déet koku mom daf ko wax mu nek lo xamni peut-être que du luñ mëna laal mën ko palpe ni parce que mbañum rus jikko la waye eh, diine frère am koku mom mën nañ ko lamb daj ko ta frère am moy cheikh umarul fouti radiyallahu taala anhu ñu ni ko quoi léegi xanaa nag ku am frère di nga am baay mu ni mani Cheikh Omar mooy baayam waaye Cheikh Omar mooy frère am Babacar Si bokk na ci yi mu tagge Cheikh Alhaaji Omarul Fuuti abu diini wa taqwa axu wal huda walam yarda ma laysa la ali noonu la ko tagge abu diini wa taqwa nee na eh, eh, eh, maam Cheikh Omarul Fuuti mooy baayu diini mooy baayu ragal yàlla axu sidqi wal huda نينا مام شيخ عمر موي بروم موي موي موي فريرو دغو اك نجوب دغو اك نجوب بو فيكون ام نان فرير نينا شيخ الحاج عمر الفوتي مو مودي سين فرير ولم ولم يرضى ما ليس لعلي عنه راضيه نينا موم مست نانغو مست اكسبتي مست گرم لود لو خامني يالا سبحانه وتعالى گرم نكو شيخ عمر لي يالا بغ لا بغ موتاخ لوم بغ يالا بغ امول يرانتي عندما نبايك منركو عذوف عن الدنيا إلى الله منتحى ولي أمير المؤمنين مغازيا شيخ الخليفة رضي الله عنه قصيدة برافة بابو نغا خمني دفن نكو تمام شيخ عمر الفوتي بمكو دفن نكبا قصيدة بي أج متد قدي جي شيخ عمر واتي تي جنة تاتو دقار تكي نارو جرم جل بين بلاتو دفتي أي رزي جوخو نكو تيري طريق باني نونو كو جوخة تي مؤم أوكي لولو نانيكو خم تانو لتدي بكو دفن نكو kon da ngay wax ni zul a maamam jooju moo doon boroom loolu ñuy wax mbañum rus wa siyaana akuk ñoŋ ku ku ñoŋoon la maanaam daawul dugg ci lu lu lu ne waaw da daan xam ci li muy dugg nit ku ñoŋ la waaw nit koo xam ni ku bàyyi xel boppam la wal xasab nee na boroom ngor la alxasab mooy firi ngor ku amoon ngor la waaw ndax ngor c'est dafa am solo nee na wal makaana borom daraja la woon wa diyaana borom diine la woon wal amaana borom kóolute la woon sayidi nee na kooku moo di sama sang ba al muxtaar ibnu ahmada kay doomi ahmad rahimahullah yal na bur yàlla dolli ko yërëm amin ya rabbi nee na zakiyan nekkoon na it kaana rahimahullah kaana nekkoon na rahimahullah yal na bur yàlla dolli eh, eh, yërmandeem zakiyan nee na nekkoon na di ku sell xayran nekkoon na di tànneef mardiyan nekkoon na di di di di ku lamboo ngërëmal yàlla dégg nga waaw wala boog di dikkuy gërëm yàlla subhanahu wa taala nee na wala dikkuñu gërëm mardiya wa kaana inda rabbihi mardiya dégg nga ca alquran ja nee jawaadan nekkoon na di ku tabe jawaat dina firi tabe dina firi jàmbaar waaw di nga dégg ca ca nuuni yé ba cheikh alhaj malik radiallahu taala anhu ma ngi koy tagge yonent bi jawaadun mustafa aynul uyuni skay wallahi kooku ci turam yàlla bokk jawaad nee na ku tabe la yaa jawaadu te foofu même boo xoolee boo defee corrélation yi jawaadu ak wahaabu même poids mystique yi benn la 14 la 14 jawaadu boo ko wàññee 14 la wahaabu boo ko wàññee la mooy tolloog bi firi loxo te loxo mooy joxe hmm? gis nga ko nee na faadilan nekkoon na di koo xamante ni bii ku bare woon ay ngëneel la waaye wafiyan nekkoon na ku daan matal kóllëre kaamilan nekkoon na ku matoon ay jikko aaliyal himma nekkoon na di ku yëkkati ku daraja ak ak ak yitte ndax nit dafa war a am yitte bu kowe waaye nabiha sha'n nekkoon na itam di koo xam ni ku yewu mbir la maanaam mbiram dafa maanaam ku yewu mbir boo ko déggee mooy koo xam ni nit ku yeewu la et puis lépp lo xamne ne lu muy def la dana ko set setantal ko tatbiq ko sok caa dug nabiha sha'n nena min akabir al a'yan dafa bokkon ca ponkali sang ya parce que a'yan jamu ayn la ayn bi fi nit lay firi mom la don mom la don jàng sank legi a'yan dafa nek jamu pluriel ci ayn waaye uyun dana nek pluriel ci ayn comme lolu Cheikh al Hadj malik di wax nan لما وخلق جواد المصطفى عين العيوني aywa kon dangay wax ni wa afadili zaman bokkoon na ci ñi nga xamante ni bii ni ci ña gënoon ci jamono la maanaam ña nga xam ni jamono amoon na leen te ñi ñu gën maami Sayid Ahmad Tijaani jii ñu daan woowee almuxtaar ca la bokkoon dégg nga boroom ngëneel ca jamono ca la bokkoon yuwaasilu nee na daana jokku arrahima ak bokk ndax jokk bokk dina waral yi dina waral say bokk bëgg la dina waral yàlla bëgg la dina waral gudd fan dina waral yaatu wërsëg dina la musal ci mbugalum bàmmeel bokk yi nañu bàyyi bàyyiwaat xel ci jokk bokk ndax yàlla subhanahu wa taala boo seetloo ni mu waxe ci alquran xaayaani wax ja sax dafa raglu wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxaama inna allaha kaana alaykum raqiba sadaqallahul azim nañ ci bàyyi xel yàlla ne man ak bokk maa ko doxale ci seen ay diggante sant leen ngeen jokk ko moo tax maami Cheikh Tidiane ji di almuxtaar nekkoon na koo xam ni yuwaasilu daana jokk arrahima ak bokk wal aqariba ak loolu nga xam ni moo di ay jegeñaaleem naka noonu wa yuwaasi daana dimbali yuwaasi almuwaasaat mooy dimbali aha al jiraan ñooñu nga xam ne ñoo di ay dëkkandoom wal ajaaniba ak ay jàmbur jàmbur yi sax dana leen dimbali al ajanib mooy ay jàmbur nee na kasira saxaa ku bari woon ak tab la shadid al xayaa ku taroon kersa la dafa bari woon lool kersa radiyallahu taala anhu maa ngi ñaan sama borom mu dolli ngërëmam maa ngi ñaan sama borom mu dolli yëkkati ay darajaam ca barzax ndax ngërëm loolu rek la firi ku yàlla gërëm mooy ku yàlla yëkkati say daraja ca barzax wa ardaahu te mu gërëm loo وجعل تمدف ممبر يلا الجنة لولونغا خمني مودي الجنة مأواه لولونغا خمني مودي كرم أكتب وايم أمين يا ربي مجنك وأما جده الثالث كوك نغا خمني موي مامو نتيلم مامو نتيلم مدن كان مني فهو السيد الأصيل النذيه الجليل العلامة الحفيل عالم العلماء وأمير الأمراء جليل القدر عظيم الخطر صاحب الحال القوي والمدد الروي والنور السني والهدى المبين والحزم المتين والبصيرة الصحيحة والأقوال الصريحة والهيبة والوقار والإجلال والإكبار الذاهد الورع الناصح المتبع أبو العباس سيدي أحمد بن محمد بالفتح da واخني هو أما جدّه amma jadduhu kooku nga xam شيخ تيجان ñu ngi ci askanam athaalis maamam jooju nga xam ne mooy maam yu ñetteelam fa huwa moom asayidu nee na mooy sang ba al asil sang boobu nga xamante ni bii ni ku ku ku jamono daawul soppi la na mu mel rek la mel ku cosaanu la waaw kay al asil ku cosaanu waaw nit ku integre la woon waaw waaw loolu nag dafa am solo nee na itam an nazih nekkoon koo xamante ni bii ni nee na ku sell la al jalil nekkoon koo xam ni ku màgg la waaye itam العلامه نكون فوري بو علامه موي خملا كون موم ولف دي واخ فوري بو موي كو خامني جانغنا فن ييب با بار ولبتي كو ديكو جانغالي ني واخ علامه هم نينا الحفيل نكون نكو خامنتيني بي ني نينا كو كو كو, كو باري وون اك تابلا وا باسكو خامغا حفيل لول لاي تيك موي كو خامني كو ام تاي جوخيلا moy al hafil nga ko de neena itam nekon na alimul ulama ndaysan nekon na koku nga xamni mo jàngal borom xam-xam ya re ko non rek wa amirul umara nekon na koku nga xamni mo don njitu njit njiit ya mooy bur buur ya rek deng da ngay wax ni jalilul qadri ku magon daraja la azimul khatar ku réyoon danger la parce que nitu yàlla dafay bëri danger nag ah oui parce que boo ko xamulee rek pour mu gaañ la dafay daal di yomb nee na saaxibul xaal nee na borom xaal la woon alqawi xaal bu dëgër xam nga dafa ñoo xam ne seen xaal dafa dëgër xaal bu dëgër mooy koo xam ne xaalam du wàcc déedéet foo ko fekk xaal bi mi ngi ci kaw saa yu waxee rek wala nga gis ko mu toog noppi boo nee ko jàkk sam xel ni yar ci yàlla loolu mooy borom xaal bu dëgër dafa am ñu meloon noonu sëñ Babacar ci wali yoy la bokkon mom sa yu toge boko ne jak sam xel dem ci yàlla am na ñoo xam seen xal daawul wàcc lool lañuy wax sahibul hali al qawi waaw kay neena borom xal la won bo xamni al qawi xal bu dëgër la waaw wal madad neena borom mi tëbb la woon arrawi yi tëbb yoo xam ni dañ daan baawaan daan mandale نانا ون نوري برمي لير لون السني ليري كوي قد حال سنن منك دونهم وسنا الإمام البصيري نانا والهدى بروم جبلون المبيني نجب غلير نانا غوكين نتلول نانا والحزم بروم تكولا بروم دوغلون صاحر كبير عزم لا تخلد إلى الياس واصحب أحل حزم كيسنغا سيد إبراهيم الرياحي والحزم نانا بروم بروم تكلون هم هم almatini takk gu dëgër wal basira borom gis-gis la woon alsaxiha gis bu wér waaye itam wal aqwaali boroomi wax la woon alsariha wax ju leer nañ wal hayba borom respectabilité la woon borom hayba woon joo xam ni wal waqaari boromuk wegeel la woon wal ijlaali boromuk màgg la wal ikbaari boromuk rëy la woon azzahidu nee na mooy ku dëddu addina ka alwariu nee na mooy ku sàmm lool annaasixu nee na mooy ka nga xam ni ku daan laay biir muhammad alayhi salatu salaam la waaye almuttabia mooy kañ daan topp ndax dafa amoon jikko yonent alayhi salatu abul abbas la abul abbas sayidi ahmad ibnu muhammad bil fathi kooku mooy ñetteelu maamu cheikh tene radiallahu taala ah jikkoom yaa ngi de léegi ñu dem ci ñeenteelu kan mu huwa رابع الأجداد لسيدنا رضي الله عنه وهو الشيخ الولي المكين العلي ذو النور اللائح والجذب الواضح والمحبة الصادقة والهمة السابقة والتوكل على الله والرضا عن الله والنهج القويم والخلق الكريم وقد حكي عنه رضي الله عنه أنه كان له بيت في داره لم يدخله أحد غيره وكان إذا خرج من داره للمسجد يتبرقع ولا يرى أحد وجهه ولا يكشف عن وجهه إلا إذا دخل المسجد ثم إذا رجع إلى داره عاد إلى ستر وجهه حتى يدخل لخلوته من هو موم رابع الأجداد rabiul ajdaadi مام لسيدنا رضي الله تعالى عنه ñeel kooku nga xam ni moom moo di sunu sang ba di Cheikh Seydi Ahmad Tidiane yàlla na buur yàlla dolli koo gërëm Abul Abbas Sayyidi Ahmad ibnu Muhammad lay wax de ba tey mu ni huwa kooku acheikhu mooy sëriñ ba alwaliyu mooy kooku nga xam ni que yàlla méngu ay mbiram la collaborateur ci suñu borom la mooy al al alwali almakin nee na ku bëri ku bëri daraja ku rëy daraja dégg nga ko eh, al ali nee na ku koy woon la eh, zunnuur nee na boromi leer la al laih leer yoo xam ni نيغي خوي لو لم يلح في فضاء الكون طلعته تبقى البرية في الظلماء يا الله ايوا موم لاي واخدان ذو النور مورن برومي لير اللائح لير يا اللرقتي لير يا خم داي ملني ملخ جيكي جيكي رك ني قاي نيب غيسكو والجذب نانا مورن بروم اتراكسيون با موي جذب موي كو خامني دا غيس رك مو نيود دي لا خيتش لا سي يالا نانا الواضح nee na nga xamni ni ñot di gu leer waye itam wal mahabba nee na borom amour moo borom ciofel borom mbeugel ci yalla as-sadiqi begil, mbeugel gu degg ci yalla ndax dafa am solo yalla subhanahu wa taala boko beugé rek su yagge mu beug la te bu la beugé rek jeex na comme nam ko waxe ci hadithul qudsi ba sahab jam du deñ di ma jege lu ci ay nafila ba man yalla ma mujj beug ko te donko ko bëggee ko man yalla don ko la wax fa iza ahbabtuhu kuntuhu su ma ko bëggee moom sama jaam bi man yàlla damay mulbati ko doon sama jaam doon gi mooy lan man yàlla maay nekk bët ba muy xoolee maay nekk loxo ba muy laalee maay nekk tànk ba muy doxee aywa salaamaaleykum kon nga xam ni mbokk yi eh, nitu yàlla yi foofu ngay déggee seen kattan yi ñu daan am ak seen mën gaa def ak mën gaa dindi ndax yàlla moo leen jox faveur boobu ridwanullahi alayhim ajmain su ko defee nag loolu la euh, Muhammad Muhammad ibnul Arabi daan wax les gens savent bien que je suis amoureux seulement ils ne savent de qui nee na nit ñi xam nañ ne am na ku ma bëgg waaye le problème mooy dañoo xamul kan la ndax bés bu ñu ko xamoon yàqu ko ah te man bëgguma kenn ku ma yàlla subhanahu wa taala moo tax gis nga ñeenteelu maamu Cheikh Tidiane bi radiallahu anhu dafa nekkoon borom mbëggeel wal mahabba borom mbëggeel waaw borom mbëggeel as sadiqa mbëggeel gu dëggu waaye wal himma da doon borom yitte as sabiqa yitte ju jiitu mooy koo xam ni foo ko fekk mi ngi jiital yitteem wa tawakkuli ala allah da doon koo xam ni foo ko fekk mi ngi wéeru mi ngi sukkandiku ci buur yàlla mi ci turi kawe yi ak melo yu sell yi waaye wa rida da doon koo xam ni boroom ngërëm la anillah ci yàlla lu yàlla def nangu na ko mi ngay jàng ci salax dari wa an yuhibba lillah wa yubgida lahu wa yaghdaba lahu wa wa yaamura bilmaarufi wa yanha anil munkari boo boolee juróom benn yooyu moom lañ tuddee awsaaful qutubi képp ku ñu ni kii qutubu jamono la soy set ay jikom juróom benn yi c'est fondamental suko amul du khutbu moy foog muy bëgg ngir yalla di bañ ngir yalla di mer ngir yalla ba paré di gëreum ngir yalla di digle lu bax di téré lu bon mer ngir yalla ak jafé nak ak jafé bari na ko xamné illay lay tax mu mer bu loko waxé da ngay réeba dé waaw wayé nak eh, tabarakallah kon da ngay wax ni war rida anillah moom de borom ngërëm la woon ci yàlla ngërëm bu ngeen ko déggee mooy koo xam ni lu yàlla def accepté na ko nangu na ko waaye wan nahji boroomu yoon la woon an nahji yaani assabil an nahj mooy aw yoon al waadix yoon wu leer moom la wolof di wax ngiro mooy yoon ngiro wal mahabba dégg nga kon dagay wax ni wan nahji al qawim ak yoon wu jub wal xuluqil karim ak jikko yu tedd wajil nee na am na sax ndeysaan nee na moom Sidi Ali Haradim loo xam ni nettali nañ ko ci ñeenteelu maamam bi تنك مودي مم وقد حكي عنه نتلس نجمم رضي الله تعالى عنه أنه نكم كان له بيت دفعون بين النك في داره كبير كرم لم يدخله أحد غيره نك بابو كماي مم دوجدوج وكان إذا خرج من من داره للمسجد تمام مم بوفك دفع نكون كو خامني سجينا الكرم جم تجاك جا وكان نكون إذا خرج بجنة من داره كرم للمسجد يعني إلى المسجد جم تجاك جا يتبركعو دفع نجل بينو بركة mooy loolu nga xam ni léeg-léeg nga gis yéen jigéen ñi di ko jël di ko def ci seen kanam yi pour bañ ko gis seen xar kanam waaw Cheikh ma ñeenteelu maamu Cheikh tan noonu laan def da daan jël benn euh, benn euh, benn lu mel ni kaala wala lu mel ni euh, rek benn tissu boo xam ni daf koy wàccee ci kanamam ba kenn du gis xar kanamam moom lay wax yata barqaaw bu daan dem ca jàkka ja da dafa daan dafa daan muur xar kanamam moo tax wala yaraa daawul gis ahadun kenn wajhahu xar kanamam wala yakshifu daawul wuññi maanaa daawul muri an wajhihi ci xar kanamam ga illa ida daxala al masjida lu dul daa dugg ci biir jàkka ji waaye ci mbedd mi jamais kenn du gis xar kanamam thumma ida rajaa ila daarihi léegi nag bu delloo këram nag aada dafay delluwaat ila sitri wajhihi ci muuraat xar kanamam xatta yadxula ba mu dugaat li xalwati yi ca néegam boobu nga xam ne fala daan wéet dafa wéttali ko yàlla moom ñeenteelu maamu cheikh sayidi ahmad tijaani radiallahu taala anhu boo balee léegi nag sidi ali harradim mu ni man dafa am benn bés ma laaj Cheikh Tidiane ni ko waaw ñeenteelu maamam bii moom lii mu daan def nii xanaa daf ko daan def parce que dafa amoon benn maqaam ci yàlla boo xam ni eh, dafa kowe lool lu mel ni nu kunuzi ba tax mu daan def li mu daan def Cheikh Tidiane ni ko déedéet mafatixul kunuzi dañuy mët ci yàlla ñooñu duñu duñu def yooyu loolu tax mu ni eh, waqad sa waqad saaltu cheikh radiallahu taala anhu an sababi sitri wajhihi an innas fa ajaba radiallahu anhu wa qaal ولعله بلغ مرتبة في الولاية فإن من بلغها يصير كل من رأى آه، آه، وجهه لا يقدر على مفارقته طرفة عين وإن فارقه وانحجب عنه مات لحينه وهو من أدرك هذا السر وهو 72 علما من العلوم المحمدية ومكث فيها 23 سنة يستر وجهه عن الناس للعلة المذكورة mu ni wa qad saaltu laajoon naa alcheikha sëriñ ba radiallahu anhu li cheikh sayid ahmad tidiane sid ali harradim nee na ko ni ko an sababi sitri wajihi ci lan moo mom mom moom mom moom ñeenteelu maamam boobu nga ko di abul abbas sayidi ahmad ibn muhammad lan moo tax mu daan muur xar kanamam gi an sababi sitri wajihihi waaw ana lu mu daan muur xar kanamam anin nas ci nit ñi nee na laajoon ko cheikh tidiane radiallahu anhu nee na fa ajaaba mu daal di tontu radiallahu anhu moom Cheikh Seydi Ahmad Tidiane ba mu tontoo daal di ni walaallahu jombul ni moom sama maam boobale balaxa dafa jotoon dafa dafa àggoon waaw martabatan ci martaba boo xamante ni bii ni fil wilaya ci biir wilayatu fa inna man balagaha képp koo xam ni jot na am na maqam boobu wala martaba boobu yasiiru dana mujj fan lay mujj kullu man raa wajhahu képp ku gis xar kanamam laa yaqdiru ala mufaraqatihi du am kattan ci teqalikoo ak moom tarfata aynin lu ëpp xef ak xippi xam nga loolu rëy na ku egg ci martaba ci wilaaya foo xam ni dangay ngay mujj di mur saxar kanam lu ko mooy ku la gis dootul mën teqalikoo ak yow lu tol ni xef ak xippi Cheikh Tidiane moo wax loolu kon xam nga kooku xam na wilaayatu de wilaayatu ay xam-xam la des koy jàng de moo tax mu ni wa in faaraqahu bu teqalikoowee ak moom kooku gisoon maamam boobu ci xaal boobu wan xajaba te mu muuru waata anhu ca moom maanaam nga gis ko dem ba jëmmi jamono gisatoo ko nee na kooku ka gisoon te gisatu ko maata day daal di faatu il va mourir il va mourir waaw li ca saasa mu ne ah loolu moom kiimaa ne na Cheikh Tijaan radiallahu taala anhu ci xam nga wilayatu mu daal di ni wa huwa koo kële koo kële ak kooku kum mën a doon nag man mooy ka nga xam ni adraka jot na maanaa am na haada sirra boobale sirru maamam boobu moo tax nag muy wax waaye de manière générale sirru boobu ku ko mënti amit dangay ngay dem ba dootoo mën génnati ndax ku daje ak yow bu la xoolee dootul mën tàqalikoo ak yow te bu tàqalikoo ak yow rek dafay daal di faatu moo tax bari na loolu nit a nga koy bëgg fekk naa bari na ay yëf ci biir nag waaw bari na ay yëf ci biir mu ni wa huwa martaba boobu nag ithnaani wa sabuuna ilman dafa bokk ci loolu nga xam ni moo di juróom-ñaar fukk ak ñaari xam-xam yooyu min al ulumil muhammadiyati mi ngi tukkee ci xam-xam yooyu ñuy wax alxaqiqatul muhammadiya xam nga ulumul muhammadiya mooy xaqiqatul muhammadiya ndax xaqiqatul muhammadiya ay xam-xam la xam-xam yooyu wilaaye sa wilaaye lu mu rëy rëy mënoo cee passé juróom-ñaar fukkeelu xam ak ñaar wala yii foofu la ñuy yem ما شيخ سفيان رضي الله تعالى عنه نقول لا لا تبير أيوة مدالجني ومكث تسخون فيها تمرتبة بوبو ثلاثة وعشرين سنة نيار فكي أت أكنت سخنة مقام بوبو مم ينتلو مم بوبو 23 ans يوخامن تدبيني يستر دفدان مور وجهه خركنا مم عن الناس walif nit ñi lil illati al madhkura ngir rek illa bii nga xam ni lañ tudd illa mooy la pourquoi facteur bi rek mo taxone daf daan bañ nit ñi di gis di faatu te kon il est dans l'obligation muy mur xar kanamam rek way ndax yeureum nit ñi ndaysan legi nak bo amé neena sayyid ali nak qultu ma wax li sayyidina ñeer suñu sang ba radiyallahu anhu cheikh sayyid ahmed Tiyani. hadihi al martaba ndax martaba bi hal hiya ndax day martaba bo xamni Dan dañ ko jagleel mu nu nekk lu particulier bima fatihil kunuzi ñooñu nga xamni moy ñi yàlla dénk caabi trésor am yi trésor yàlla yi ay may la ay leer la ay xam-xam la ay tëjalliya la ay manifestation divine la trésor yooyu dafa am nit ñu ko yàlla dénk nit ñooñu lañ tudde caabi yi parce que nit ñooñu tey boo dikkee ba àgg ci ñoom trésor bi dafay daal di tijjeeku ci yow loolu moo rek mooy mafatixul kunuusi moom nga dégg cheikh al xalifa radiallahu anhu bi muy tagg cheikh sayid ahmad tijjaani loolu la ko tagge woon baytul wilayati misbahu ldalaami wa miftahu lkunuudi wa xatmu lkulli lilxiini ok ok moo tax mu daal di ni ko waaw ndax mafatihu lkunuuz yi maqaam boobu mooy boo demee ba àgg ci martaba ba saxar kanam da koy muur ndax lu ko mooy ku la gisati dootul bëgg taqalikoo ak yow sinon bu taqalikoo rek faatu ndax loolu mafatihul kunuuz yi rek ñoo ko jagoo aw yu yusharikuhum dana bokk ak ñoom ca maqaama boobu fiha yaani fi hadihi al martaba gayruhum kenen ku dul ñoom maanaam ndax maqam boobu day maqam boo xam ni mafatihul kunuz yi keese keese ñoo ko jagoo wala ñeneen ñu dul ñoom mën nañ ko am loolu la Seydi Ali laaj Cheikh Seydi Ahmad Tijaani loolu nag xam-xamu wilaayatu la loola ba mu amee قال مدال دي وخ رضي الله عنه يلا بور يلا قرم كون شخصي أحمد تجاني دال دي نيكو بل هذه الحالة المذكورة لغيرهم من العارفين وأما القطب ومفاتيح الكنوز فلا يستترون لكمالهم ولعل السيد المذكور أدرك هذه المرتبة فكانت هي سبب ستر وجهه عن الناس مدال ديني إيه بل لي في نك شيخ تجانا غي تونتو شلاج با هذه الحاله melokaan wii almadkura wii ñu tudd mu wur xar kanam lu ko mooy ku la gis faatu ndax bu day ko ak yow nee na loolu li gayrihim ñeel na ñeneen ñu dul mafatixul kunuz yi min al aarifina ci ñoom wa nga xam ni ñu xam yàlla lañu maanaam maa aarifina yi am na ci ñoo xam ni ñooy jot maqaam boobu mu ni waaye nag wa amal qutbu kooku nga xam ni moo di qutbu bi wa mafatixul kunuuz yi ak ñi nga xam ne ñooy mafatixul kunuuz yi ñooñu fala yastatiruuna nee na du ñu muur te du ñu yiir seen xar kanam lu tax mu ni li kamaalihim ndax seenu mat ci yàlla mu ni nag wala alla sayidul mazkur jombul sang bii nga xam ne moom la ñu tudd léegi muy abul abbas sayidi mahamad boobu ñu wax léegi bil fatx ñeenteelu maamu cheikh sidi ahmad tidiane boobu mu ni adraka jombul ni jot na hadihi l martaba boobule martaba muy martaba boobu nga xam ne ci aarifina billahi la ko yàlla di jox te kum ko ci xasa jox saxar kanam dootoo bëgg nit ñi gis ko lu ko mooy ku ko gis dootul bëgg taqalikoo ak yow sinon bu taqalikoo ak yow dafay daal di faatu gis nga Cheikh Tidiane ni muy waxee prudence bi prudence bi prudence bi wala allah jombul jombul te pourtant maamam la te ku xam wilayatu la waaye taxul mu dogu ci daf ni wala allah jombul as sayid sang boobu dégg nga almadkura sang boobu ñu tuddoon adraka jot na hadihi martaba boobule martaba loolu tax fa kaanat nekkoon na hiya moom sababa sitri waji yi euh, loolu moo sababoon rek mu daan muur xar kanamam ani naas ci nit ñi mu ni nag wa hada sayid radiyallahu taala anhu huwa alladi wafada awalan li ayni maadi watawatana biha wa bana وتزوج منهم فكانوا أخوالا لسيدنا رضي الله تعالى عنه ولهذا ينتسبون للتجانية وليس لهم نسب لأهل عين ماضي بل غلبت عليهم الكنية والشهرة لأجل مصاهراتهم لهم من وهذا السيد سانغ بي ما رضي الله عنه من an ما ñeenteelu maamu Cheikh Seydi Ahmed Tidiane bii nañ ko ndax ku historique la ci taarixu cheikhu tidiane radiallahu anhu mu daal ni maamam bi huwa moom alladi mooy ki nga xamante ni bii ni wafada goor na góor wala fa koy wax góor wafada mooy koo xamante ni bii ni dox na ba agsi ci bërëb mu tekki fa daal di fay wàcc daal di fay def këram daal di fay toog moom lay wax wafada góor na awalan pour la première fois li ayni maadi ci dëkk boobu ñuy wax aynu maadi wata wattana nee na mu dëkke biha ca aynu maadi wa bana mu tabax fa këram wata dawaja mu denc fa soxna minhum ca ñoom aynu maadi fa kaanu ba ñooñu mujj nekk dégg nga ko de axwaalan di ay ndijaay li sayidina ñeel suñu sang ba radiyallahu taala anhu ndax mbokki ndeyam foofu la ñu bokk ca aynu maadi loolu moo tax mu ni axwaalan di ay ndijaay mu ni wali haada loolu moo tax yantasibuuna ñu daan leen askanale wala ñu daan askanoo li tijaniyati ci loolu nga xam ni moo di ak tijaniya ndax giir googu nga xam ni mooy askanu ndayam di tujaanatu mu ni walaysa lahum déet di leen ñeel nasabun askan li ahli ayni maadi ñeel ñooñ aynu maadi déedéet maami cheikhu tijani radiallahu anhu makka lañ bàyyi ko bal li fi nekk nag xalabat noot na dominé na alayhim ci ñoom al kunya loolu nga xamni mom modi ak dakental ndax dakental fi lañ ko fek wa shura ak ciiw ciiw go momu ju not ca ñom lutax muni li ajili musaharatihim ndax xeyna rek de lañu goralante lahum di len ñeel aw al musahara parce que baatu sahara moy khalata jaxaso ndax xam nga goralante jaxaso la korolante fu mu amee rek mbokk dafay daal di judd waaw wolof léeg mu léeb ko bu deret jaxasoo xaste jeex wax ju xóot ju am solo ju am njëriñ la mu ni nag ba tey ñu dem ci askanam moom cheikh sayidi ahmad attijaani radiallahu an mu ni wa amma nasabuhu radiallahu taala anh فهو شريف محقق ويرفع نسبه إلى سيدنا محمد المقلب بالنفس الذكية بن مولانا الحسن المثنى بن حسن بالسبط حسن السبط بن مولانا علي رضي الله عنهما ونسبه رضي الله عنه مذكور في رسمهم عند أوائلهم فلم يلتفت سيدنا لذلك لما هو عليه من الجد والاجتهاد ولم يكتفي بما هو مذكور من الآباء والأجداد والرسوم وأخبار الأعيان والآحاد حتى سأل سيد الوجود وعلم الشهود صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في كل نفس مشهود عن نسبه وهو وهل هو من الأبناء والأولاد ومن الآل والأحفاد فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا وقال له صلى الله عليه وسلم نسبك إلى العلي waaw نسبك إلى الحسن بن علي كوكو صحيح دعني ngay وأما نسبه wa amma nasabuhu en ce qui concerne li nga xamante ne bii ni moo di lignéem ay origine am moom Seydi Ahmad Tidiane radiallahu anhu yàlla na bur yàlla dolli ngërëmam Seydina Cheikh radiallahu anhu soo demee ci ay origine am da ngay wax ni foog wa moom Cheikh Tidiane chérifun ne na ku tedd la chérif la muhaqqaqun bu ñu firndeel maanaam chérif la boo xamante ni bii ni bu authentique la nekk un descendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lolo du lu ñuy lam-lame mom lay wax nan fa huwa mom sharifun ku tedd la ab sharif la sharif bo xamni muhaqqaqun bu kenn dul werante la bu ñu firndeel wa yurfau te des na yekati itam nasabuhu askanam ila maulana muhammad ci kok nga xamni modi maulana muhammad al mulaqabi kooku ñu daan dakkental wala kooku ñu daan eh, woowe dégg nga laqab bi nafsi zakiya ci kooku nga xam ne moo di an nafsu zaki borom bakkan bu sell ba waaw radiallahu an ibnu mawlana kooku nga xam ni moom moo di eh, doomi suñu eh, kilifa ga dégg nga alxasan al musanna xasnul musanna ñëpp dégg nañ ko ibnul xasan kooku nga xam ni moo di doomi xasan ja asibt xasanu sibt ñëpp xam nañ ko asibt mooy sët ba sët ba mooy sëtu yonente bi alayhi salaam ibnu Mawlana kooku nga xam ne moom moo sunu kilifa ga Ali kooku nga xam ne moo Ali ibnu Abi Talib radiyallahu anhuma te ku ne Ali ne yonent bi ndax Ali Abu Talib sayiduna Muhammad Abdullah te ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay Fatimatu ak kooku nga xamante ne ni moo di Abdul Muttalib kon da ngay wax ni moom Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu داني يكتي أسكنام مدام باتي كوكو دي مولانا محمد الملقب بالنفس الذكية ابن مولانا الحسن كوك نغا خامني مودي مولانا الحسن المثنى ابن الحسن السبت كوك نغا خامني مودي سيدنا حسن كدي ستو يوننتي حسن مومو نغا خامني مودي دومي مولانا علي بن ابي طالب رضي الله عنهما بور يالنا دولي سين غرم امين يا رب مولي نك ونسبه اسكنام دي رضي الله عنه يالنا بور يالنا دولي كون غرم موم شيخ madhkurun Nena lole lu ñuy tudd la fii rasmihim nee ci la nga xamni mom modi moo di seen bind ya ca seen anal ya wala boog euh, euh, nuñ koy waxe encyclopédie ya, wala bok ci seen histoire wala bok seen histoire bu officiel bo ca Mama mamam yi di nga fekk ñu bind ko fa inda awailihim ci nga xamni ñom ñoo fas nga xamni ñoy ñi jitu okay falam yaltafit te andak lolu daawul gëstu mësta gëstu mësta bàyyi xel sayiduna suñu sang ba di sayiduna cheikh radiallahu an li dalika ca loolu maanaam mësta bàyyi xel ak di sóoraale ni man kat satub yonent bi laa sama mbir yépp baax na lu ma neex mel lu ma neex def yonent bay saamaam cheikhu tiijaan giiru dundam mësta bàyyi xel loolu déedéet bu bàyyi woon xel lool du dem fekk ñaari jaam mu jënd leen ci alalam goreel leen def leen ay soxnaam Cheikh Tidiane dafa jàngale ba ci ni mu ni mu sampe këram sax da cee jàngale radiyallahu anhu lool du lu yomb de yi ku ñu yaa di taajul aarifin kon da ngay wax ni falam yaltafit mësta gestu sayiduna sunu sang bari sayiduna cheikh radiyallahu anhu li dalika ñeel loolu nga xamante ne bii ni moom moo di askanam ndax nag eh, askan baax na waaye di ko bàyyi xel ba mu ëpp nag dafa bokk ci yi sànq nit am na wax yoo xam ni dañu wax ni Seydina Ali ibn Abi Talib moo ko wax am na ñu ni nag Seydina Ali waxu waaye lu ci mënti am ak ku ko mënti wax wax ja moom xaqiqa la waaw xam nga wax boobu ñuy wax naan Seydina Ali def ni woon la amruka ما الإنسان إلا ابن دينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب أوكي سيدنا علي دفني لا عمرك ما نجي وات سا دوند وخيني عرب لا من مال إنسان ديت كوكو نيوتو دي إنسان muy نيت mbaa دومو آدم illa bnu diinihi lu dul muy doomu diineem nit diineem la war a jël def ko baayam diineem la war a jël def ko kilifaam nit du doomu way juram doomu diineem le nga ni ko lu tax mun la maa ngi ñëw waaye daal fala tatruki taqwa bul seetaan aka bàyyi sak ragal yàlla ittikaalan muy lu ñuy sukkandikul ak di ko wéer ala nasabi ci askan déedéet man nangam la sante wala yonent bi sa mam damay bax dama wara bax det lolou fan nañ ko bind te déggul non di lolou du ci dara léeg nga deg wolof ni buy dina jurum khatax kan te dëgg la buy buy di ngeen gis buy buy xale xam nañ garabu guy domi moy buy buy khatax bobu ne ci fim nek ni bu la laalee di nga wokatu ba yakar ni adna bude tuk ci sa kaw te pourtant bo tojee buy bi ci biir dafa neex te ci garab gi mbayiko bo dikon ci garab yi nga ci risu fi ba suba sa yaram du

ittikaalan muy luñu wër ak diko sukkandikul ala nasabi ci askan nga ni ko ah xew muni la qad rafaa al islam raya al islam yekati kuna ka ko yëkkati moom moo salman al farisi salman al farisi sayyidina abdullah ibn abbas mo netali ni man salman moo wax ni mu tuubi ak ni mu duggé ci l'islam ak yoon bi mu jaar ba ak ci yenenbi bi sallallahu taala alayhi wasallam sallam nak nag duñ ci mais dam nañ ci wax tuuti rek gis nga salmaanul farisi baayam buur la woon mu waroon a doon nguur xëy xool xam ni lii ay caaxaan la mu bàyyi ko fa dem di tërbiyu ay labbe tërbiyu benn labbe ba labbe bi génn àddina mu tërbiyu waat beneen labbe labbe boobu bi muy génn àddina ci la ko ni nag dama lay xamal benn affaire lii ñuy wax christianisme dugal nañ ci lu ci bokkul génn ci lu ci bokk rax nañ ko jamono bii may wax ak yow yàlla yónni na ndaw bàyyi ko na Makka dem na madinatul munawwara dëkk boobu ñuy wax Tayba soo fa demee jaayantel ak moom ci diinem jooju mu yor loolu moo waral salmaanul faris yi génn ba mu génnee daal di daje ak yont yàlla Ilias bi moo daje ak yont yàlla Ilias yont yàlla Ilias moo ko tegtal yoon wi ni ko toogal fii ci kanam tuuti am njëgg daañ la romb mooy caravane bu bàyyi koo Cham jëm Madina soo demee nga ànd ak ñoom ay yahud lañu yahud ya daal di koy jël mu fay leen alal moom Salman al Farisi au lieu ñu yóbbu ko bañ ko daal di koy nax jàpp ko def ko jaam benn bés nag mu toog ci biir sang yi ñuy waxtaan rek ñu dégg ñuy wax mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nañ ni du lekk sarax waaye ku ko jox hadiya mu jël dégg nañ ni digg gannaawam bi amoon na benn tampon bu fa nekkoon ñu koy wax xaatamun nabi xaatamun nubuwa bi nangam nangam koo xamante ni bii nii nag ku ku ku ku doy waar la parce que bi mu déggee yooyu daf ko nattu daf ko nattu waaw loolu moo tax mu ni laqad rafaa al islaamu salman faris te taxawaayam position bi mu amoon ci l'islam position bu rëy la moo tax yonent bi alayhi salaam daf daan wax mu ni faris ba mu daj muy perse ba moo fa gën xabas ba mu daj bilal moo fa gën muhajirun ba mu daj sayiduna abu bikrin siddiq moo ca gën lansaar ba mu daj saad ibnu muaad moo ca gën kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan wax saxaaba yi ay tabaqaat lañu tolloo wuñu ay doole ah loolu itam nañ ko xam kon nañ ci yem noonu rek waaye itam nee na waqad wadaa shirku sharifu aba lahab aba lahab abdul uzza moo doon turam doo dégg ci alquran tabbat yada abi lahab te ànd ak loolu yépp ànd ak xolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy baayu yonent bi te li nga xam ne moom la ñuy wax bokkaale yàlla subhanahu wa taala bu doon kër la ci la dëkk moom moom lay wax waqad wadaa sippi na ashariku loolu nga xam ne moo di bokkaale aba lahab ndeysaan est-ce que mbokk yi eh, bu doon askan rek kon abu lahab jëriñ ci yonent bi alayhi salatu salaam waaye ànd ak loolu yëpp gis nga ko fa mu mujje tabbat yada abi jaar mu jaar fanaan tabban lahu tabban lahu tabban lahu alkande ñeel na yonent bi alkande ñeel na yonent bi yàlla xool xool xool nag yëf yi xaw mu xëy rek daal dina jibril soo demee waxal yonent ne ko na wax ni tabbat yada abi lahab waaw waaw mu dog lu doy waar yëngal lool makka waaw waaw waay mbokk yi waaye rek ñu xam ni Cheikh Tidiane radiallahu anhu mësta bàyyi xel wala muy geestu wala muy sóoraale ni man sëtub yonent bi alayhi salatu salaam laa dama war a toog loolu baax léegi loolu boobu benn angle la léegi nag mu des beneen angle lu tax askan baax am na ñoo xam ni dinañ ci yeewu yeewu gu toll ni man kat ci fii laa bokk lu bon waruma man fii laa bokk lu baax rek laa war a def man fii laa bokk ni ñoom laa war a jéem a mel loolu itam c'est c'est un aspect bu bu bu bu important ci wàllu askan bu ko defee na nañ ci bàyyi xel incha allah moom moom nga xam ni moo di Cheikhu Tidiane falam yaltafit daawul gestu sayyiduna suñu sang ba li dhalika ñeel loolale muy ni moom shérif la lu tax mu ni lima ñeel la nga xam ni huwa loolee alayhi moo ànd moom minal jiddi ci ak farlu wal ittihaadi aku taxawaay cheikhu tidiane taxawaay ak farlu gi mu àndaloon moo taxoon musta toppatoo ni man shérif la te it walam yaktafi neena na musta yam maanaam musta doyloo bi maa ca la nga xam ni huwa loolee mazkurun daanañ ko tudd minal aba ci ay baay wala daani ak ay maam war rusumi daan ko bind ci ay kayit ak ay journaux wa axbaaril ulama ak li nga axbaaril ayaan ak li nga xam ne sang ji daanañ ko nettali daan ko xibaar wal ahadi ak ñi nga xam ni ay nit ñu euh, euh, nit ñu ahad mooy ñi nga xam ni euh, kenn daawul lam-lame seen wax bu ñu waxee dañ naan diwa wax ñu ni waaw mu ne ah kooku de lu mu wax dëgg la waaw boo déggee ahad mooy ñooñu waaw nee na Cheikh Tidiane musul gestu loolu hatta saala ba benn bés nag mu daal di laaj moom Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu sayyid al wujudi ka nga xam ni mooy sangu nekk téef di yonente bi alayhi salatu salaam wa alama shuhudi ak ka nga xamante ne bii ni mooy drapeau bay folote ca biir xadara suñu borom ba nga xam ne lu mu doon teewee na ko moom yonente bi alayhi salatu wassalaam ah loolu lay firi de alamu shuhud mooy drapeau bay flotté ci biir xadara suñu borom ba waaye mooy drapeau ba nga xamante ni bii ni lu mu doon teewe na ko yonanti bi alayhi salatu wassalam ku dugg ba mel mu dugg ànd ak yow koko amul werante de yonanti fekke ne lépp motax nga deg ci alquran suñu borom di wax nan inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum shahidan alaykum lolou ku yakar ne nak fi la yam ci adina xam lolou xew ba ci ëllëg ci kanam yàlla sallallahu alayhi wasallam lu mu non mom la ko yàlla di laaj ci xetam wii ha c'est le seul responsable nak ha c'est le seul responsable waaw moo tax wa alami shuhudi cheikh tidiane radiallahu taala anhu daana laaj maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fi kulli nafsin fi kulli nafasin ci kooku nga xamante ni bii ni moom yonent boobu nga xam ni salla yàlla na julli allahu bur yàlla taala bur yàlla mi jombi caaxaan alayhi ci moom wa alihi ak waa këram wa sallama nee na te doon leen jàmm amin ya rabbi fi kulli nafas kooku nga xam ni ñeel na ko ci bépp nokki mashhudin euh, euh, nokki goo xamante ni gii ni guñu guñu seede la an daan na ko laaj moom Cheikh Tidiane ci lan la ko daan laaj an nasabihi ci askanam agit wa hal huwa min al abna wal awlaad ndax moom Cheikh Tidiane bokk na ci doom yeeg sët yi manam ndax bokku na ci doomi yonent bi ndax bokku na ci seeti yonent bi alayhi salam wa min al al ndax bokku na ci waakar kër yonent bi wal ahfad ndax bokku na ci seeti yonent bi alayhi salatu salam fa ajabahu sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi yonent bi alayhi salatu salam daal di koy tontu ci waxam ja niko anta yow de cheikh tidiane waladi sama dom nga haqqan ci deug non la ko waxe anta waladi haqqan yaa googu yaayi mutakallim la allahu akbar ante yow wala di sama doom nga de xaqan ca dëgg ni ko waat ante yow day wala di sama doom nga xaqan ca dëgg nee na kararaha répété na bamu na loolu sallallahu alayhi wa sallam yent yàlla muhammad alayhi salatu salaam baamu na ni ko anta wala di xaqan yow day sama doom nga ca dëgg anta waladi haqqan sama doom nga ci tu es certes mon fils noonu la quoi tu es certes mon fils welante amul ci ni ca dëgg yow sama doom nga yonent baamu loolu salasan ñetti yoon ci koo xam ni loo wax dëgg la kon loo baamu ñetti yoon lu mu doon koo xam ni loo wax dëgg la loo baamu ñetti yoon kon lu mu doon wax na lahu di ko ñeel moom yonent sallallahu alayhi wa sallama wax na cheikh sayidi ahmad atijani daal di ni ko nasabu ko yëgal ni yow sa askan ila alxasan ibni ali dem na ba sa askan dem ba yegg ci kooku nga xam ni moo di xasan muy sayiduna xasan ibnu ali ibn abi talib mu ni ko loolu saxiixun lu wér la bool ci sikk sàkka lu wér la mu ni nag na nga xam ne gis nga laajte bii ngay dégg ni Cheikh Tidiane radiallahu anhu laaj na ko maamam yonente bi alayhi salatu salaam hal huwa min al abna aw hal huwa min al min al min al ahfad nee na loolu bul yaakaar ni Cheikh Tidiane bi mu ko laaj yonente bi ay ay listixaara la wala ay nelaw de déedéet yaqazatan jar yow jàkkaarloog yonente bi alayhi salatu salaam loolu lay wax naan wa hada sualu min sayidina radiallahu taala anhu li sayidi l wujudi yaqadatan la manaaman موتخ وبشره صلى الله عليه وسلم بأمور عظام جسام صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم من وهذا السؤال لاج بي واي لاج بي واي لاج بي واي من سيدنا لاج بيغا خامني ميغي توكي سي سون سانغ با سيدنا شيخ رضي الله عنه لسيد الوجود نيل كيغا خامني موي سانغو نيكتيف دي يونتبي عليه الصلاه والسلام موي سانغو مبول مينديفي laaj la boo xam ni ma ngi ko ko laaj yaqazatan ci ak yëg ak yëg moy ko nelawul ku ni jar laama naa man du caagante ay nelaw te itam wa basharahu bégal na ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallama bi umurin ci ay mbir idamin mbir yu mag jisaamin mbir yu rey te bokk na ca mbir yim ko doon bégale man yonente bi ma jàngale laa ilaha illa waaye yow Cheikh Tidiane yaay jàngale Muhammadun Rasulullah bokk na ci yem ko doon bégale yow yoon yow Cheikh Tidiane na nga yëg ni anta sirru sirri anta nuuru nuuri yow yaay sekkerab sekkere bi waaye yow yaay leerug leer gi yii ay wax la yoo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko wax Cheikh Seydi Ahmad tiijan te yaqazatan laa wax waxuma ay nelaw waxuma ay def istixaara ak di tëdd di gis déedéet yaqazatan la manamal à l'état moo tax mu ni wa basharahu daana ko bégal moom moom moom yonente alayhi salatu wasalaam dégg nga ko bi umurin idam ci ay mbir yu mag jisaamin mbir yu rëy sallallahu alayhi wa sallama nee na yàlla na buur yàlla dolli ko dollee julli ci moom dollee sëlmal ci moom wa sharrafa dollee dolli ko teddal moom yonente bi yaani dolli ko teraanga wa karrama dolli ko dolli ko e, e, tedd nga waaye wa majjaja dolli ko ak ak yépp nga la wa azzama te gën ko dolli ak mag amin ya rab sallallahu alayhi wa sallam mu ni nag moom Cheikhu Tidiane ñi nga xamante ne bii ñoo ko gënoon a jege ci askan ñan la ndax dañ laa wax ni la moom Sayyid Ahmad Tidiane am na ay mag am na ay rak te ñoom ñëpp daanaka faatu nañ am na ci koo xam ne nag bi muy faatu daf fi bay njaboot loolu la bëgg a leeral tuuti moo tax mu وأما عشيرته الأقربون إليه فهم أولاد سيدي محمد رضي الله عنه وهما سيدي محمد المكنى بابن عمر كان حافظا للقرآن العزيز ومشاركا في علوم الشريعة مبالغا في علوم الفرائض والحساب مات رضي الله عنه بعين ماضي وأخته وشقيقته السيدة رقية رضي الله عنها فكانت أكبر سنا من سيدنا رضي الله عنه وكانت تأتيه إلى منزله ويكرمها ويواسيها ويرضيها حتى يبعثها إلى مكانها عين ماضي فماتت وتركت ولدا اسمه عبد الله حافظا للقرآن ومشاركا في بعض العلوم وله باع في علم الحساب وهو من أصحاب سيدنا وأخذ عنه وهو الآن بقيد الحياة بعين ماضي فهؤلاء المعروفون عندنا من عشيرة سيدنا وشيخنا رضي الله تعالى عنه matat rahmatullahi alayha da ngay wax ni wa amma ashiratuhu ndal la nga xam moy kandam ga manam kand wala fu koy wax moy ñam dan andandol al aqrabuna ilayhi xam nga nit nit andandoy ay façon la xam nga nit dina and ak ko xamanteni bi ni mi ngi and ak mom waye bokul ak mom deret nit mi ngi ànd ak nit fekk dañoo bokk deret te muy àndandoom waaw boo amee ñaari àndandoo yi bu ñuy wax ku la ci gën a jege mooy àndandoo bi ngay àndal te bokk ak moom deret Cheikhu Tidiane ñam daan àndal tam ñu bokkoon ci ay saxaabaam ña ko ci gënoon a jege ci wàllu deret ñan la loolu lay wax wa amma ashiratuhu ndaal ña nga xamante ni bii ni ñoo di kàndam ga al aqrabuuna ña nga xam ne ñoo gënoon a jegeñ ilayhi ci moom fahum ñooñee de awlaadu awlaadu cheikh ñoom ñooy doomi sëriñ ba awlaadu cheikh ñooy doomi sëriñ ba sayidi muhammad kooku nga xam ni mooy sunu sang ba di muhammad mag la ci cheikhu tijaan radiyallahu anhu cheikhu tidiane dafa am magam bu góor bu tudd muhammad amoon ñaari doom soog a génn addina waxuma ñaari doomam yooyu mooy sayidi muhammad almukanna bibni umar moom ngay di dégg ibnu umar magu cheikhu tidiane ko jur muhammad kooku nag nga xamante ni bii ni ibnu umar la magu cheikhu tidiane muhammad juróon ko kooku moom nu mu meloon ak moo doon kan sayiduna ali harradim barrada nee na kaana xaafidan lil quran ku wattu woon alquran na jàngoon ko rip mu mokk al aziz laa wax alquran ji nga xam ni moo jaaxal ñëpp te ñëpp kenn munu ci dara alquran moom mu ne su ko yàq alquran mu ne ko soppi moo tax foo ko gisee ñu naxa naatale ko qualifié ko Aziz rek mooy loo xam ne kenn mënu ci dara xool-xool ba rek jéem-jéem ba waaw wa musharikan nekkoon na ku daan participer fi ulumi sharia ci loolu nga xamante ni bii ni moo di xam-xamu sharia ku ko xamoon la ku ci daan participer la mubaligan nekkoon na ku jàngoon ba yegg ci dayo njàng fi ulumil faraid ci loolu nga xam ne mooy xam-xamu miraas miras mooy xam-xam bi nga xam ni bu nit génnee àddina bien yi mu bàyyi nan la ñuy jaar ba séddale ko kenn ku ci nekk ni jox la ca la di sa xàq loolu mooy miras wal xisaab yi ak loolu nga xam ni moo di xam-xamu calcul muy mathématique arithmétique donc moom ku ko xamoon la dégg nga euh, achams wal qamar bi xusbaan alquran moo ko tudd ah, ah, ah, xam nga xisaab dafa am nag boo demee euh, avant les socratiques euh, ñi ñu tuddee les présocratiques comme ñu melni les Pythagore xam nga il y a les socratiques les post-socratiques et les pré-socratiques xam nga philosophe yi nga xamni ne ñoo fi nekkoon lu jitu Socrate ñooñu lañ tuddee woon les pré-socratiques Ah, ñu melni ñom ñoom Thalès ñu melni ñom Pythagore waaw xam nga Pythagore ku ne xam na ni calcul arithmétique ak walu mathématique ñom bo demee ci ay doctrine dafa am dafa am lu ñu gëm muy le nombre le nombre muy adat di nga dem ci alquran nga deg suñu borom nen wa ahsa kulla shay'in adada lepp lu mu doon suñu borom daf ko teunk ci lim amul wérante wa ñom bo démé ci les pythagoriciens dafa am luñu tuddé le nombre la science du nombre motax So démé ci sen ay doctrine dafa am luñu tuddé la tétractis pythagoricienne la tétractis pythagoricienne a ñom non lañ ko tuddé dañu wax ni soit x fekk bobu ñi ngi yalla allah subhanahu wa ta'ala ñu ni yàlla xamuñ ko mais x lañ ko mën tuddee x mooy inconnu mooy lu ñu xamul mais lu ñu xamul la mais dañuy teg dañuy élaborer benn benn système boo xamante ni bii ni ci la ci la ñuy tàmbalee pour mën a xam x boobu muy yàlla moo di kan mu ni x muy inconnu bi ñu ni égal 28 effectivement vingt 28 dina baax pourquoi 28 dina baax parce que soo xoolee yàlla subhanahu wa taala même moom sunu borom bi mu bëggee wax ak nit ñi al qur'anul karim bi nga xamni mom la doxale digantem ak nit ñi jox ko ndawam ñi ñu jotté di ko nit ñi harf yi nga xamni ñoko bind ëppu ñu 28 lettres ëppu ñu lif ba jim dal ba shin boko wagné 28 la ñu soit x égale 28 ñu 28 c'est 2 plus 8 effectivement 2 ak 8 la 2 plus 8 2 à 8 2 et 8 moins plus 8 Qui seen biir théorème la pratique pythagoricienne dafa am la réduction théosophique réduction théosophique moi 2 plus 8 soit x égale 28 selon la réduction théosophique 28 égale 2 plus 8 2 plus 8 égale 10 effectivement dootul 28 qui démarche mathématique 28 2 ak 8 la 2 8 10 la la réduction théosophique 2 plus 8 égale 10 légui 10 fukk yoy lan la ñu 10 moy xolal ben, ak ñaar ak 1 plus 2 plus 3 plus 4 1 plus 2 égale 3 3 plus 3 égale 6 6 plus 4 égale 10 effectivement 2 plus 8 bi nga xamni ci lañ symboliser effectivement comment ñu daldi 2 plus 8 selon la réduction théosophique égale 10 10 c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 1 c'est Zeus Zeus c'est Allah 2 ce sont les deux luminaires la lune et le soleil 3 ce sont les trois règnes règne animal végétal et minéral sunu borom di nga ko jàng ci alquran ci isa waqaatil waqia bi muy wax naan wa kuntumu azwajan thalatha les trois règnes règne animal règne végétal ak règne minéral muy les trois règnes quatre mu ni ce sont les quatre éléments yi nga xam ni bu amul dund du mën a am muy eau air terre feu effectivement muy loolu ñu tuddee natahama muy naari yu turabi yu hawa yu ak maa yi muy an naar muy safara ak turab suuf al hawa ngelaw ak loolu nga xam ni moo di alma ndox les quatre éléments. le total donne 10, effectivement. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Muni, encore selon la réduction théosophique, parce que réduction théosophique, nous avons élaboré 1 plus 2 plus 3 plus 4, c'est 28. 2 plus 8 égale 10. 10 c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. 10, selon la réduction théosophique, c'est 1 plus 0. 1 plus 0 c'est un symbole de l'unicité de Dieu Lolo mooy waral sen la ilaha illallah saxoon ñom les pythagoriciens autant. Lolo loolu waral même fa bokkon ci ñu gëm ñom les pythagoriciens lolo ñu tuddee l'immortalité de l'âme et l'unicité de Dieu ça c'est formel chez eux su ko defee kon calcul nit daana ci sukkandiku dan ci jaar ba xam kan moy Yalla subhanahu wa taala Xalé yi da ngeen wat xel mathématique te yit nak mathématique bi jëm ci walu Yalla et c'est très important dégg nga motax koku nga xamni dom la ci cheikhou tidiane magub cheikhou tidiane radiallahu anhu moko juron mu don ibnu umar mom moomu ku mokkaloon alquran la ku daan associé ci ulumu sharia la ku jangon xam xam-xam bu jotal la ci ilmul alfaraid muy xam-xamu ndaysan miras wal xisaabi ak calcul wa nombre waaw dafa xawa a xat nde ma jox len yenen exemple waaw nombre dafa dafa dafa dafa dafa yeme les chiffres les chiffres parlent hmm da ngeen ko bàyyi xel mu ni itam maata faatu radiyallahu anhu koku nga xamni modi ibnu umar bi ayni madi dom la ci cheikh tidiane ndax doomu maga moko jur mom ma nga fato ci aynu madi wa ukhtuhu ak séeram ba séeram bobu mo don kan wa shaqiqatuhu koku nga xamni ni xarit la ci mom xarit xarit moy ko xamni yéen ñaar yéen a bokk fu ngeen bawoo yéen a bokk yaay yéen a bokk papa loolu mooy ashaqiq yéen a bokk fu ngeen xare maanaam yéen a bokk nday ak baay axu shaqiq boo ko déggee mooy ku mbokk moo bokkal nday ak baay kon ibnu umar amoon na shaqiq shaqiqam moo doon kan mu ni asayid sang ba jigéen la woon ruqayya la tuddoon radiyallahu anha nee na fa kaanat ruqayya moomu nag li ci gën a yéeme moo magoon cheikh tidiane te pourtant doomi magam la ndeysaan loolu nag daana moom lay wax naan fa kaanat nekkoon na moom ruqayya mi akbaru sinnan moo ëppoon ay at yaani moo magoon min sayidina ci suñu sang boobee radiallahu anhu eh, ko yàlla eh, eh, gërëm moom sayid ahmad waaw waaw waaw nga ko de su ko defee nag da ngay wax ni wa nekkoon na taatihi daan dikkal moom eh, eh, eh, kooku nga xam ni moo di sittuna ruqayya boobu daan dikkal cheikhu tidiane ila manzilihi ca këram wa yukrimuha cheikhu ti waka wa yukrimuha cheikhu tidiane daan ko teral haa gi ci sayida bala dellu waaw sayida ruqayya yaani wa yuwaasiha daan ko dimbali moom cheikhu tiijan wa yurdiha daan ko gërëm ndeysaan naka noonu itam hatta yabaathaha ba nim ko yebale moom cheikhu tidiane ila makaaniha ca barabam ayni maadi foofu nga xam ne moo di ayni maadi fa maatat fala faatoo moom sittuna ruqayya boobu te kat ba muy faatu moom sittuna ruqayya wa tarakat bàyyi na wala dan doom doom jooju mu bàyyi ismuhu turam abdullah la kon kooku sët la ki cheikhu tidiane ndax ruqayya bi doom la ki cheikhu tidiane donte moo magoon cheikhu tidiane ndax doomi muhammad bi nga xam ni magu cheikhu tidiane la dafa teel a génn àddina bàyyi ñaari doom ibnu Umar ak Ruqaya Ruqaya moo magoon Cheikh Tidiane Ruqaya boobu avant muy génn àddina ci aynu maadi dafa bàyyi benn doom bu tuddoon Abdullah Abdullah moomu moom it nekkoon na koo xam ni xaafidan lil Qur'an dafa nekkoon koo xam ni ku wattu woon Alqur'an la xaafidan lil Qur'an xaafidan yaani aji wattu la lil Qur'ani di ñeel Alqur'an waaw wa musharikan nekkoon ku daan ku daan bokk daan participer fi baadil ulumi ci lenn xam-xam yi nga xam ni moo aju ci ulumu shar'iyya naka noonu walahu ame na ñeel na ko ca jamono baaxun mooy aw ñay wolof mooy wax ñay gis nga léeg-léeg daan nga gis xale yi daan fo loolu nag po mu yàgg la daan tëdd ci suuf tàllal seen ay loxo daal di rëdd rëdd wu ñay ni un ñay demaat ba fu ñu rëddoon taxawaat fa tëddaat ba ci suuf rëddaat seen loxo ni deux ñay loolu mooy baax mooy koo xamante ni bii ni am na xam-xam bu rëy bu yaatu bu jotal arab dafa riche moo tax muy wax naan walahu ñeel na ko baaxun kattan baaxun xam-xam bu sori bu xuut fii ilmil xisaab yi ci loolu nga xam ni moo di xam-xamu arithmétique muy calcul ak mathématique parce que nag mathématique ku ko xamul euh, day saf xorom de waaw non day saf xorom fokk ñu jàng ko c'est très important waaw parce que tey jii théorème yi ñu leen di jàngal ci théorème de Pythagore ak théorème de Thalès mais bu ñu la ko jàngalee xamal la fi mu jóge moo tax africain yi waroon na farluwaat ci dafa taxawaay ci seen bopp bu baax a baax yooyu yëpp fii la bàyyikoo ci Égypte gi maa la ko wax waaw waxtu weñ ko dul may rek su ko defee kon da ngay wax ni wa huwa moom moomu nga xam ni moo di Abdullahi boobu di doomi ruqayatu ruqayatu moomu di binti Muhammad kooku nga xamne mag la won ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu Muhammad momu juron ruqayatu mu faatoo ci aynu madi bàyyi fa dom ju wax Abdullah Abdullah momu wa huwa min ashabi sayyidina radiyallahu anhu bokkon na ci wa keur Cheikh sayyid Ahmad Tidiane maani bok jelon na tariqa Cheikh Tidiane andon nak Cheikh Tidiane min أصحاب الشيخ Ahmad تجاني رضي الله تعالى عنه لبكون moo mu ni wa huwa min ashabi sayidina bokkoon na ca àndandooy kooku nga xam ne sunu sang ba sunu sang kan شيخنا احمد تجاني واخذ عنه جابون نويرد تشموم مني وهو موم موم الان بليغي بقيد الحياه ما غاي ومات دوند دا دوند دنج لا بوليك موم ريك كوم ني لي بوليك دي هاي دانكوي ومات دوند جي دانكوي ومات تيكو ني هم اه موتاخ وهو موم الان بليغي يعني جوسكا بريزون بقيد الحياه ميغي اندك دوند ميغي ومات دوند bi ni maadi ci ayni maadi loolu nag bi mu koy wax historiquement mooy jamono bi muy bindi téere bi di ko dajale moo tax muy wax aywa mu ñuy fa haula ñii ma lim moo tax alhamdul aziz radiallahu an baatu haula bu ko daan firi da daan wax ñii ma lim duut leen baaraam mooy ñi ma tudd kan ak la fi tudd dafa tudd muhammad bi nga xam ni magu cheikhu tidiane la teel a génn àddina bàyyi ñaari doom kenn ki du ko góor tudd ibnu umar mokkaloon alquran moom it génn àddina ak ruqayya tuddi ko jigen mo magon Cheikh Tidiane génn adina ci aynu madi baye fa ben dom bu wax abdullah abdullah moomu nak Sidi Ali neena jappé na wirdu ci Cheikh Tidiane ku sore won ci xam xam lolu nga xamni modi calcul arithmétique le ak mathématique waye andak lolu yep mom mom nga xamanteni bi ni modi abdullah wa huwa al ana bi qayd al hayat bi ayni madi jusqu'à présent jusqu'à présent bi nak bu koy wax par rapport ak ouvrage bi jamono bi koy dajale motax ngeen baye ci xel deng nga ba léegi bi qaydil xayaati mi ngi wommat dund bi ayni maadi ca dëkk boobu ñuy wax aynu maadi ca jazair nee na fa haula ñii ma lim duut leen baaraam muy ruqayatu ak abdullah ak ibnu umar ñii laa la wax ni la almaarufuun mooy ña nga xam ni xam nañ leen indana ci ñun min ashirati cheikhina ñu bokk ci ak ñi àndoon ak Cheikh Seyd Ahmad Tidiane te gënoon koo jege ci ay bokkam ndax ñi ci des ñëpp dañoo teel a génn àddina ndeysaan ndeysaan moo tax mu ni radiallahu taala anhu yàlla na bur yàlla dolli ngërëmam moom sëriñ bi di Cheikh Seyd Ahmad Tidiane radiallahu anhu maatat moom nag faatu na dégg nga ko rahmatullahi alayha yàlla na bur yàlla dolli ngërëmam moom moom nga xam ne moo di situna Ruqayya bi ñu doon wax nga xam ne moo jur kii nga xam ne moo di Abdullah léegi nag mu ni wabil jumla en somme waaw un résumé Fakana awladu Sayyidi muhammad radiallahu taala anhu nasha'u an ahsani halin wa akrami fi'alin wa atyabi khaliqatin خليقة وأمثل طريقة ذاهبون على مقتضى تربيته رضي الله عنه من الخروج عن العوائد والمألوفات والذوائد والتكلفات والتواضع في أنفسهم ورفع الهمة عن أنباء جنسهم وقد أخذوا بأشياء من سيرة والدهم وتخلقوا بها ودرجوا على سنتهم وتحققوا بها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم سورة الطور والله تعالى يجادل العباد على قدر أعمالهم ونياتهم زادهم الله من فضله وكان لهم بمنه وطوله مني وبالجملة لكن نتنك أنصم دعي وقت فكان نكون أولاد سيدي محمد بول جاوله محمد بيمو يوخ مغو شيخ تجان شريف دومم يمو يوخ مورون ابن عمر ak ruqayatu ak doomi ruqayatu boobu di sëtu Muhammad bii di sët ci cheikhu Tidiane radiallahu anhu donte bokk nañ min ashaabi cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu doomam yooyu lay wax waaw ndax da ngay bàyyi xel ci tomb bi mu nekk muy ashiratuhu l aqrabuna ilayhi mooy ña ànd ak moom te gën ko jege ci askan kay moo tax da ngay wax wabil jumla en som en résumé fa kaana nekkoon na awlaadu sayidina ñooñu nga xam ne ñoo di doomi suñu sang ba di Muhammad mago cheikhu tidiani radiallahu anhu lawol nde radiallahu taala anhu yalno ɓuuri yaldo lingere mum nacha'u jebbinañu magganañu sosunañu an ahsani haalin ci gën jaa rafete melo wa akrami fialin gën jaa teddi jëf wa atyabi xaliqa gën jaa rafet gën jaa teey loolu nga xam ni mooy bind wa amthali tariqa ak gën jaa temm ay yoon temm mooy yoon wu jub xot temm amthal mooy gën jaa temm zaahibuuna foo leen fekk way woy lañu way dox lañu way dem lañu ala muqtada tarbiyatihi ca la nga xamante ne bii ni tarbiyab Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu muy ni mu leen doon yare loole la mu sàkku foo leen fekk ci loolu lañ la ñëw Cheikh Tidiane bu fekkee am li mu sàkku mooy da ngay toog six mois doo naan ñoom duñ naan daanaam ah Cheikh Tidiane a góoreel nit ñi ndax li amone bu ñëk pour nga yegg yàlla da nga daan toog ay weer doo naan am na tur yàlla yooyu bu njëkk ñemewoo koo liggéey di naan boo ko liggéeyee naan sa xol bi toj Cheikhu Tidiane bi mu dikkee il a tout donté yamul ci loolu mu fexe ba seerewaat vis yi seerewaat blon yi kii ku koy wutal morom xam loolu xew aw bi xaalin xaada tarbiya ni'mal murabbi muribbul xaqi yardaahu Cheikh al Khalifa radiallahu anhu ci waxinam yu yu yéeme yooyu xaasa làq na tarbiya ndax bi himmatin ji bul ci tàmbali firi yàgg naa laa wax jaar ak majrur ñooy liggéey de naxwu kenn du ci tàmbali <laughs> bi alhaaj Malick Diop mënu ma ñàkk ba ñu tudd waaye ah, na ko yàlla dolli yërëm seetal ni mu daan waxee rek da wax jaar ak majrur ñooy lingeeri naxwu fu leen neex tabbi te mu jur jàmm moo tax booy firi doo tàmbalee ci bi himmatin ji da ngay wax ne xaasa laq na am na yeyoo na moom Cheikh Tidiane tarbiyatan yoon wu muy jaaree nit ba taqaliko jikko yu koy teyeeg yàlla loolu mooy tarbiya ñaar la ko daan defee bi himmatin aw bi xaalin tarbiyatul himma mooy dalay fekk yow mënoo woon naafila guddi par exemple junni raka ci waxin rek Cheikh Tidiane fexe ba ngay mën a guddi junni raka def ci yow yittey jaamu yàlla aw bi xaalin wala moom melokaanam moom Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi boo dikkee melo moo lay yar ci naka mais nga ànd ak mag mu dul fen ta ñama andal kenn du ci fen kan ngay gis ko fenantel ben parce que atmosphère bi ngay nek daf ko du laaj lool moy xal and ak mag mudul dul jëw nooy jëwe mag mudul dul dugg ci lu yonam nekul noy duggee ci lu sa yoon te yi nañu nek lool moy xal mag mo xamni fu mu waxee yalla la wax te yi nañu nek mag mo xamni lu mu laal yalla la te yi nañu nek mais loolu mooy tarbiyatul xaal Cheikh Tidiane nag radiallahu taala anhu loolu la ko Cheikh Al Khalifa taggee mu ni tarbiya bi mu daan defal ni ñi ñaar yooyu la rek tarbiyatul himma wala tarbiyatul xaal moo tax mu ni niamal murabbi baax na ba yéemug baax kii nga xam ni moo mën a yar nit ba taqale ko jikko yi koy te yàgg yàlla mu ribbul xaq ki nga xam ni dafa taqoo dëgg di yàlla moo tax yardaahu de gërëm na ko allahuma salli ala sayyidina muhammadin bi yàlla nañu yàlla dolli eh, eh, gërëmal Cheikh Tidiane yàlla nañu ko yàlla dolli gërëmal kon da ngay wax ni moom daal ci gàttal ñoom ñooñu nga xam ni ñoo di doomi Cheikh Tidiane yooyu ndeysaan ak sëtam boobee waay ndeysaan dañoo nekkoon ñoo xam ni zaayibuuna woy woy lañu ala muqtada tarbiyatihi ca la nga xam ni yoonam moom leen daan jaarale lépp lu mu sàkku ca lañ nekk mooy sàkku téefi yoonam moom leen daan jaar ci yoonu tarbiya ca lañ nekkoon ca lañ daan dox رضي الله عنه يالا نبور يالا غرمكو من الخروج لغي تربيه بي لا مو ام تشوف توتي موني من الخروج تي ген غو خامني يو دنجكوي ген يو نيتكي عن الحوائب تيغا خامني دنجكو مين باخوكو اه نانغام دالانيو خامون نانغام دالانيو مين وا بودو دغ نك داي ah man lila laa sama Mam di def ak sama bay say bayima ci li det inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun tilka idan aya sariha sahiha waradat fil kitabi. lolou aya bu wér la yalla mo ngi ko wax ci alquran te bam koy wax ci anam gan la ko waxe parce que dafa am ndaw lu mu yabal ñoñe ni ko bañu ci lañu newon mu len leen mais la ngeen ne baxul yonnati bi alayhi salatu wassalam luñ ko don taxé moy liñ don taxé Socrate ba tax ñu japp ko ray ko xamulo Il a corrompu notre jeunesse et il a profané nos dieux, donc il mérite d'être exécuté. Socrate keroog bi ñu koy tuumaal yàlla yi ko tuumaal loolu tout mal, wax di nee nañ ay yàllaa ko tuumaal di les sophistes et les dignitaires loolu la ñu wax dañu dig rek ni Socrate a profané nos dieux et a corrompu notre jeunesse donc il mérite d'être exécuté ñu jàpp ko tëj noonu la demee yonent bi it c'est la même chose sallallahu alayhi wa sallam kon yi il faut que ñu xam Ada aada Ada, Ada, voyez waaye nag Cheikh Al Hadj Malik de ko wax nee na réew di senegal ma ngi xaar ba diine di fi daan aada ma ngi xaar ba diine di fi daan aada aada aada yàq lu bari ci diine ji nak waaye ah, yalla na dimbali wa bu ko defee ah jeunesse bi ngeen gorlu et puis ngeen jema jang ngeen jema a gëstu ngeen jema a ci histoire xamat parce que su su lolu amulé rek de du ngeen c'est-à-dire euh, du ngeen génn ci aada chaque fois da ngeen nan lié fi nek lié fi nek alors que bari na lu fi nek lo xamni ñing koy def te fekk adala du diiné loolu itam na ngeen ko bayyi xel te ku bëgg xamé lan moy diiné ak ludul diiné lan moy li rax ci diiné di aada fok nga jang parce que distinction ak discernement mais jang koy def ci nit koku amul wéranté na ngeen ci bayyi xel wa motax da ngay wax ni ñom dal minal khuruji ci genn guñ dan genn anil awaidi ci yi nga xam ni ay aada la wal maalufaat ak yi nga xam ne dañ koo miin rek mu neex ci bakkan mais du dëgg da ngeen yaakaar ni façon bii ñuy defee gàmmu nii ñun léegi si ci gàmmu yi nii bu si laaj Malick dekkiwaatoon ci jamono dina ko bàyyi ñu muy continuer lii <laughs> subhanallahi alazim parce que miin nañ ko rek nit ñaa ngi def rek ñu yaakaar ni dox na fekk doxul te loolu boo ko nattee par rapport ak njàngaleem diine mais dafa mel ni nga ni fondement ni décor gàmm décor la ci diine amul benn njariñ fondement bi mooy la mag ña def muy lal daara jàngale ba nit ñi xam yàlla xam yonent bi alayhi salaatu salaam xam lan mooy lislaam xam la mu bëgg xam la mu bañ lu ci ne nga xam fa nga ca war a tàmbalee ak fa nga ca war a yem su boobaa soo nit ñi ci gàmm incha allahu daañ fa nekki ne yàlla bëgg bu ànd ak dogalu yàlla ah mais il faut que les choses soient claires aussi nañu bàyyi mag ñi seen responsabilité engagé wul li ñuy def ñun tilka umma qad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluuna amma kaanu yaamaluun aw amma kuntum taamaluun ah nañ ci bàyyi xel de aywa kon da ngay wax ni anil minal xuruji ci génn guñ daan génn ñoom doomam yoo yëlee nga xam ni moo leen tarbiye moom Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu anil awaidi ci yi nga xam ni yu ñu miin la rek te fekk ay aada la wal maalufaat ak yi nga xam ni neex na ci bakkan rek ñu miin ko nii rek fekk du dara <laughs> wa idi ak yi nga xam ni dañ koo yokk rek waaw yokk ko nii ci diine ji bon te fekk bokku ci yàlla xam na ni bokku ci waaw wa takallufaati ak yi nga xam ne nit a koy toggoo toggoo teg ko boppam te fekk yàlla teg ko ko wa tawaadui nee na ak loolu nga xamante ni bii ni moom da leen a yar moom Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ci ñu wàcce seen bopp fii anfusihim ci seen bopp waaye itam wa rafail himma ak yëkkati seen itte an abnaa jinsihim walif seen doomi jamono Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ku doomam yii nga xam ni moom ay ay magam magam moo jur kenn ku ci nekk def na ci yow lool yitte ju kowe juddoo na ca joo xam ni ko jamonoon teel tiim nga ko gis nga mbokk yi affaire bi amul secret dam nga am sa njaboot da nga bëgg bu ëllëgee ñu bokk ci ñi ñuy lim ci les grandes figures historiques ci réew ma mu nekk wala ci gox ba mu nekk da ngay fexe ba mu am yitte bu kowe yitte bu kowe mooy lan mooy la Cheikh xaaj Hadj doon wax nee na sa doom bul ko tere mooy yàlla dangay ngay fexe ba du mu ko tal da fexe ba bu mu ko tal koo xam ne yow bindi bindi alquran yaa ngi tege mu war koo mokkal bu ca paree bindi bindi bindi xam-xamu sharia baa ngi tege mu war koo mokkal bu ca tere mais kooku kooku fan lay talal leen foo xamante ni bii ni fu mu ci paree ma nga dem ci wàllu métier yi fexe mën dara ci ay loxoom parce que loolu dafa am solo mbokk yi il faut que xam ne yonent yàlla aadam bi ko yàlla di wàcce ci kaw suuf da ko boole waale junniy métier ba pare ni ko addiinu lii wax di diina ji du métier maay borom man yàlla addiinu lii wax di ah nañ ci bàyyi xel kon nag da wax ni wa rafaul himma ak ekkatiku itte an abnaai jinsihim walif seen doomi jamono seen doomi xeet ya dégg nga ko de waqad axadu jàppoon nañu bi ashyaa ci ay mbir min siirati walidihim ca la nga xam ni moo tukkee ci jaar-jaaru seen wayjur woowee di Muhammad te it wata xallaqu nekkoon nañu baaw parce que nit da ngaa war a xam sa jaar-jaaru wayjur la ca baax nga jël ko nga mel ni c'est très important looloo tax mu ni waqad axadu bi ashyaa min siirati walidihim wata xallaqu te daanañ jikkoo bihaa ca jikko yooyee nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci seen siira way jur boobale wa daraju te daan nañu daan nañu maf xam nga léeg-léeg nga dégg bi wax maf ñandu mooy darju daan nañu maf ñandu maanaam daan nañu jaar jaar gu gaaw ala sunnatihim ca yoon woowu nga xamante ni bii ni seen baay ca la nekkoon te mooy sunna yonente bi alayhi salatu salaam de wa taxaqaqu te daan nañu dëggal bihaa ca yoon wale yàlla nee na ci alquran walladina gaa yi nga xam ni amanu gëmoon nañu yàlla yal nañ ci yàlla boole wa tabaathum te topp leen ci ngëm googee kan moo leen ca topp zurriyatahum seeni sët yañu bàyyi gannaaw attention su boob bi imaanin ci ngëm su boobaa alxaq naa danañu yéegal zurriyaatihim seen sët yooyee bihim ca ñoom sa maam daa baaxoon laloon daara nekkoon wali yu yàlla léegi man damay sàggan nekk ci lu ma neex jël laay ji bëgg koo laayee waxuloo dëgg ngeen baal ma alquran waxul lool de bi imaanin la wax bi imaanin lan moo tax abu lahab duñ ko yégal ci yonent bi parce que gëmu ko gëmul yàlla bi imaanin kese moo tax duñ ko ci yégal moo tax bàyyi leen xel ci loolu walladina gaa yi nga xam ni amanu gëm nañ yàlla wattabaatuhum te topp leen ca ngëm ga kan moo leen ca topp zurriyatuhum seeni sët ya bawoo ca ñoom bi imaani nag mu ànd ak ngëm baa googu baa ul mulaabasati la al baa lil mulaabasa bi imaanin te ñu ànd ak ngëm su boobaa alxaq naa ñun yàlla dana nu yéege bihim ca ñoom ñooñu nga xam ne ñoom ñooñu ñoo gëmoon yàlla danañ yéege ci ñoom zurriyatim seen sët yee ñu am seeni daraja nee na wallaahu bur yàlla nag taala bur yàlla mi jombi caaxaan يقل ني يجازي دنا على عبادة جامم على قدر أعمالهم تكم تلا يلسين الجف ونياتهم أكسين ييني والله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والله متخمني والله بريالة تعالى بريالة مجوب بشاخان يجازي دنا فاينتي عبادة أجامم على قدر أعمالهم تكم تلا يلسين الجف ونياتهم أكسين ييني zaadahumullah nee na yàlla na bur yàlla dolli leen min fadli yi ca mbaaxam nga amin ya rabbi te wakaana nekk na lahum di leen ñeel maanaam yàlla na bur yàlla nekk wakaana tere yàlla na nekk lahum di leen ñeel bi man nihi ànd ak ñoom ca xéewalam wa tuulihi ak doolem jàkkattanam ga yàlla nañ ko yàlla defal defal leen ko defal ko mboole julu ci daraja yonente bi alayhi salatu salaam ci war mooy cheikh sayd ahmad tidiane yi leeri salaat alfatih li ma ugliq ku bëgg a jokkoo ak ñun incha allah ne mën a ko jokkoo ak ñun ci 77 102 32 24 bëri na nag ñu may laaj nan ma ñu may sax di ma bind message léeg-léeg ndax man la man la effectivement numéro boobu sama numéro la dégg ngeen du numéro keneen 77 102 32 24 suma numéro la bu ngeen ma ci woowee rek da ngeen ma jot bu ngeen ma ci bindee message yi danaa ko lire incha allahu taala et ngeen jégal ñu yal na buur yàlla jégal ñu ñu baax ñu fi tudd yal na yàlla joggi ci seen baax yooyu baaxal suñu mbir yëpp lépp lu jaaxal xeetu yonente bi alayhi salaam yal na ko sama borom yëkkati na ko sama borom teggi